asalaamaaleykum wa rahmatullah kon ñu ngi nuyu ñëpp ñi fi teew xam naa wax bi moom dina xaw a jafe suñu sëriñ ñoo fi teew kon dañuy santaan yàlla wax alhamdulilah rabbil ci xéewal bi nga xamante moom la wàccee fii di ñaan yàlla yàlla na ci yàlla yool ay waajuram wool yool ci mbooleem jullit def lépp mu nekk ay yiw mu wàcce ko ci suñu dëkk bi ndax comme yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne alxuraan xaraf boo ci jàng rek xasana la kon mu commencé baqara ba jeexale ko naas loolu yool bu bari la yàlla na ko yàlla def yool wàcce ko ci àddina si yëpp ndax alxuraan mooy téere bi nga xamante ne nii moom la fi yonente bi bàyyi sallallahu alayhi wasallam bi muy génn àddina mu bàyyeel ñu ko ne ku ci jàpp doo réer kon dañ cee war a jàpp ndax mooy li nga xamante ne mooy leer gi nga xam ne moo nekk ci àddina di leeral jul bi fu mu war a teg tànkam te mokkal alxuraan du lu tuuti ndaxte ku mokkal alxuraan rek mooy yàlla moo la tànn ndax nit yàgg na koo bëgg def ci lu ne daj ci lu ne te yàlla may ko ko nit sonn na ci def ci lu ne fay ci ay millions mokkal alxuraan bu fekkonte ne lu ñuy jënd la comme xaalis lu ñuy jëndee xaalis la kon yaakaar naa ne milliardaires yi nañ daw dem jëndi ko waaye nag alxuraan ko yàlla def sa dund mooy yàlla moo la tànn mu nekk loo xamante ne nii xéewal la mu nekk ci àddina si yépp kon alxuraan dañ ko wara jëfé jang ko jëfé ko na su fekkonte ñu ngi tay jang di jëfé yi nekk ci biir kon miti di nit ñi jàmbat tey ci àddina bi du fi am ndax yalla mo ne képp ko xamante ni du nga sama arfuran ji di nga dund dund gu kerej mo tax kon nit ñi li ñi jambat fi ñoko tek suñu bop bu ñu sellalaatoon suñuy xool jàng alxuraan jëfe ko jéem jefe jëfe ci bir wacce ko adna kon dundu gi dina neex ndaxte yàlla dafa alquran ci benn aaya ne su fekkonte ne waa dëkk bi dañoo ragal yàlla gëm yàlla dina wàccee xéewal yi nga xamante ne moo nekk ci asamaan ak suuf kon dund gi dina neex kon mbokk yi ma leen di ñaax ngeen di jublu def lu mel nii comme li xale bi ay waajuram fu ñu toll ñëpp nañ jubal seeni doom yóbbu leen ci daara yi ñu jàngi ndaxte jël sa doom dugal ko alxuraan jiitu ci dënnam mooy am na fondation bu dëgër te tabax fondation bu dëgëree mooy mën naa yenu lu bari waaye fondation bu oyofee mooy loo ci teg lu ne day daanu kon ku jël sa doom duwal ko mu jàng alxuraan mooy fondation bu dëgër na kon lu ñëw tegu ci kawam rek day yomb kon ñu koy ñaanal di ñaanal ay waajuram yàlla na yàlla fay te fay ki nga xamante ne moo ko doon jàngal ak ñëpp di ko doon jàppale ndongo yi nga xamante ne ñoom ñoo fu wàcc yàlla na yàlla yombalal ñu mokkal comme seen mbokk mi salaamaaleykum wa rahmatullah jërëjëf soxna Awa ci kàddu yu rafet bi ak soxna Zeyna ñoom ñu nga fële ci daara ja nekk ca Grand Yoff foofu la nekk yal na yàlla jàppale yal na ñu fekk njëriñu xale bi ñu koy dox suñu nijaay Papa Ndiaye mi maam Maguette Moussa Ndiaye Tatato aouzu billahi min ashaytaani rajim بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على من أرسل رحمة للعالمين سيدنا وحبيبنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد أيها الحاضرون والحاضرات نحييكم بأحسن تحية من أجملها وأطيبها وهي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته لقوله صلى الله عليه وسلم من بدأ بالكلام قبل سلام فلا تجيبوه ولقوله تعالى فإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أردها أو كما قال مبكي نيغنوي كين كو نيك سي تورمك سانتام دي لين زياره دي لين بالو حق دي نيان سبحانه وتعالى مي نيو في داجالي يالنا يالا بولي نيو جيغل نيون نيب ببركه القران الكريم Euh, ñuy yëkkati kàddu Pam Ndiaye ak euh, Sëriñ Ba ndax yàlla dogal na euh, lii ñu fi teewe tey muy nit ku jàng alxuraan di ba wattu ko ñu ñëw pour seedeel mbooloo mi ak jullit yi ak jox leen valeur alxuraan ak sensu alxuraan kon barke bi nekk alxuraan yàlla bu mu ump kenn ku toog ci ñun Eh, Pam Ndiaye nee na mi ngi leen di sant mi ngi leen di gërëm mi ngi leen di ñaanal yàlla amul seen fay ceemul sax fay leen waaye nag comme am yàlla may na ko mu droit mu mën leen a ñaanal day féetewoo di leen ñaanal yàlla yàlla yàlla sàmm leen yàlla na yàlla dëgëral leen ndax li ngeen def ci xale bii moom mënu ko mënaanu ko waaye li ngeen ci def gis na ko rafetlu na ko mi ngi ciy sant bu baax a baax a baax. mi ngi sant it ñi ko ci jàppale surtout oustazam ak soxna ak soxna Fatou Sylla seen taxawaay rafet na seen yéene ci ndawu lislaam rafet na yàlla na yàlla dëgëral leen seen liggéey yàlla bu mu neen àdduna yàlla bu mu neen allaaxira ndax lii ku jóg def ko dafa mel ni yow ah, la yonent bi waxoon yow yaa ngi ci yonent bi moo ne woon balligu ni walaw bi ayatin jottali leen ma donte bool benn aaya la waaye yonent bi wax aaya ngeen jottali dugal ci dënnu xale lu toll ni alquran ah loolu lu rëy la Pam Ndiaye mi ngi koy rafetlu munu leen a fay ñaanal rek lay féete lay féete woo di ñaan yàlla na yàlla dëgëral leen yàlla na yàlla sàmm leen ndax ah jigéen ji nga xam ne tey jii moo taxaw jàngal ah dafa dafa taxaw taxawaayu sayyidatuna Aïcha ndax yonent bi moo jox ñun jullit yëpp ne leen unzur xizu nisfu diinikum ila hasil xomera nee na jël leen seen genn wàllu diine ci jigéen ju xees ji kon jigéen la yonent bi joxoon jullit yëpp ne nañu jànge ci moom kon tey jii jigéen am na cër ci lislaam cër bu rëy kon loolu la euh, xale jigéen ñi jël philosophie boobu jël ko di ci di ci dund yàlla yàlla la yonent bi joxoñoon Aïcha ba Aïcha doon njëriñ ci saxaaba yi yàlla na ko yàlla na njëriñ wàcc seen kaw a ah, seen philosophie baax na li ngeen jàpp ni moom moom moo gën moo gën fi ngeen dugg teg seen tànk foofu la Pape Ndiaye ak i mbokkam ak soxnaam ñëpp ñu ngi leen di sant di leen gërëm di leen ñaanal yàlla yàlla yàlla taxaw Oustaz Diop ak soxna si Silla ku sant Silla ku mën a jàng dal macha allah loolu moom macha allah yàlla yàlla def ci moom barke yàlla na yàlla ko Pape Ndiaye it mi ngi kontaan. ci waa gox bi waa quartier bi mi ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp képp ku fi teew Pape Ndiaye mi ngi lay sant mi ngi lay ñaanal yàlla nee na moom nit ñi fi ñu ko teg moom yeggu fa waaye nit ñi seen mbaax rek la ñuy dawale jëmle ci moom waaye moom du moom waaye nag yàlla la leen ti bàyyil yàlla yàlla fay leen ah su kàddu Pape Ndiaye mo li euh, dañ mënuma koo wax li ci xolam mënuma ko yeggale waaye al isharatu yàgg fii li ma naaqa la junj dina doy ko am xel ku ñu defal lu baax te lu baax dara gënu cee raw alquran ñu defal la ko li gëna a ci kaw suuf nit dugal ko sa deñub doom neena loolu kenn mënu la jox kado ci kaw suuf ba mu fe ba mu wessu loolu kon loolu Pam mi ngi leen ci gëreem bi ci dess nak moy Serigne Ba Serigne Ba de nena, ah nee mom day limuy reccu moy yeex gi mu yéex nek goro Pam Ndiaye nee loolu moy limu yeex loolu lay reccu ci digganteem ak Pam Ndiaye luy teranga ak sutura Pam Ndiaye sekk na ko ak mom nee na nag moom da koy bàyyeeg yàlla mu munu koo fay ndax kii sëtam la mu jël ko nangu cee sonn sonn bi kon Pam Ndiaye kon kuy sonn ci sa sët kenn waxatul sa sa doom kon Pam Ndiaye lii nga def ci dënn lépp lu alxuraan ëmb yàlla yàlla bum la ëmb sëriñ ba kontaan na ci yow mu ngi lay gërëm ba fa yërëm di gërëm sa soxna di gë di leen gërëm bu baax a baax a baax démb rek la ñuy waxtaan ci guddi mu ni sama doom mokkal alxuraan te man duma ci dara jéemu ma ci defu ma ci waxu ma ci vraiment loolu Pape Ndiaye mi ko def maa ngi koy sant di ko gërëm mi ngi lay sant di ñaan xale bi it yàlla na yàlla barkeel yàlla na yàlla di sakkanal sa dund yàlla na yàlla yiir la lépp loo bëgg a peeg ci xam-xam yàlla na yàlla defal la ko ba nga jàngale comme ñi nga xam ni ñoo la jàngal loolu mooy sa philosophie yàlla na la yàlla defal loolu sëriñ ba Pape Ndiaye mi ngi lay sant di la gërëm di la ñaanal yàlla gudd fan ak wér lépp loo mébét ci sa njaboot ak sa àdduna yàlla yàlla teg ko ci sa loxo sëriñ ba nee na amul sa fay nee na fi nga ko féete xam na ko yàlla xam na ko yàlla yàlla fay la te defoo te kiir dara yaakaaroo ci moom dara lu dul yàlla rek nga tax moo tax ngay def comme yàlla moo tax ngay def nag yàlla moom du du réeral jëfu aji aji rafetal kon yàlla yàlla fay la zahiran wa baatinan sa dund yàlla nga ci sentir ne xaqan yaa ngi dund lu la neex waaye boo dee yaa nga yàlla nga taseeg sa yërmanday borom yàlla nga taseeg sa yërmanday borom moog sa yoog sa soxna yëpp Pam Ndiaye nee na mi ngi leen di gërëm amul seen fay nee na bu lu mu mënoon def amul denn lu mu leen terale ba mu ba gis li ngeen ko def ba mu dabu ko waaye nag ñaanal leen la la féetewoo mu ngi leen di ñaanal yàlla yàlla barkeel yàlla bu kàddu yi ñaawee nag. na leen leer ni ki leen jottilil moo matut waaye niyatul mumin ablagu min amalihi ngeen jàpp ni sama yéene mooy ma jottalil leen kàddu yu rafet yoo xam ni ku ko dégg di nga ci gis sa bopp loolu moo taxal ma yëkkati kàddu wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala parce que man fi ma nekk nii yaakaar naa ne du ma mun a jël du ma jël kàddu ah, ah. mu mën a jël kàddu waaye ñu ngi sant yàlla di ñaanal yàlla ñi nga xam ne ñoom la yàlla dimbali ba li ñu dégg tey ci suñu doom ji yàlla dimbali ko ko alors ba wàlla mu mokkal ko ñun dëgg dëgg dëgg dëgg kontaan nañu ba fu kontaan ah yàlla moo wax ci alquran ne wa ma utiitum min alquran ila xalilan te lu tuuti rekk lu tuuti lu tuuti rek la may nit ñi ko alut ci xam-xam wante yàlla def te ba alors ci xolu nit ki yàlla def te ba alors xale bu tuuti mm-hmm. te alors mokkal ko baqara ba naasi mm-hmm. du caaginu te wa alors yow te wa